joxu leen carte invitation mosu koo nuyu waaw loolu sax moo koy bëgg a waxal boppam kon kon li leer mooy ñoom ñooy wax ñaari kàddu suñ noppee jox suñu saala karab ñu ngi jégalu nag ñu ngi ñaan kàddu gi ñiy def direct Abdoulaye Touré moom Serigne Nasir Touré ak Serigne Mamor moom Serigne Abdou Dendey moom Serigne Modou Xaban di xaar Serigne Bass booba ak léegi mbokk ci comité bi sonn ci lool jërëjëf Abdou Gaye Ndindi waa kër Serigne Mouhayidine Samba Diallo jërëjëf bisimilah ñu ñëw wax ñaari kàddu sëñ Abdou Khoudoss mu sëñ Cheikhouna am sëñ Abdou Lahat ci comité bi la bokk sëñ Abdou Lahatoum sëriñ Xaadim moom sëñ Ibrahima Mbacke ku baax ku yiw ak Moustapha Cissé foofu laa ko dugal Cissé sëriñ Saliou dafa ànd ak sëriñ Cheikh Wilaya teewal sëriñ Dame Abdourahmane moom Cheikh Ibrahima moom sëñ Touba Mamadou Racine xaritu Serigne Basirou sama soppe la sama genn wàll la nit ku baax a ngoog lu ma nekk moo nekk ca maa ngi koy sant di ko gërëm moog doomu ndeyam alaaji ba Samba Ngom mu président Macky Sall soxna Fat Diané ñu ngi koy sant ministre de la femme de la famille de la protection des enfants di rakk Serigne Bass di sant xaritam wëllëreem Dame Diané di sant maître lii ka ba soxna Asubali soxna Kiné Thioune ñu ngi sant maître lii ka ba ci cant gu rëy def na fi teraanga yu bari ànd ak maam ba démb Adja Ndeye Maguette jërëjëf Thioune andi nga fi teraanga yi bari ñu jox waa kër sëñ Mouhayidine Samba Diallo suñu noppee ñaari minute rek suñu noppee déglu sëriñ Moustapha Abdoul Akram ak sëñ Cheikh Bara wax mu jeex bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ginnaaw biñ sante suñ borom subhanahu wa julli ci sang bu tedd bi Seydina wa sallam di wasal ci Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo di ñaan suñu borom mu yeesal ay yërmande ci ko am waaye di ñaan suñu borom taas ñu ci ay barkeem xanaa bokku taalibe yi bokku jullit yi ñu maase ñun ñëpp sant suñ borom subhaanahu wa taala mu mel ni gaynde sëriñ baara bés bii moom man ci lima ma jàpp ci am ci yaqiin mooy lépp luñ fi ñaan rekk suñu boroom dina nu ko nagul ndax li jafe ci réew mi ci jamono bii moom la gaynde bu sëriñ baara réalisé mooy lan majjul islaam fii tawhidil kalaam bi ñu Cheikh Mouhidine Samba Diallo doon jàngal teraangay jullit daal mooy ñu benn la seeni baat te tey tarixa bu ci nekk kër gu ci nekk sentir nañ na tey jii sa xol sedd na ci yëg gi la gaynde baaraw yëg bu invité la ci lii nga xam ne mu koy liggéey lislaam gëpp du ñu deñ nag di la doolee sant ndax it nag wax dëgg yàlla ñàkkoon koo tuddee bés bii waaye boo demee bu àgg ci yàlla xàmmee daf lay réer aqiqa muhammadiya rek moom ngay dese mooy koo gis jàpp nga ne sa bopp la bëgg gi nga bëgg sëriñ bi ba tuddee ko boole ko ci ñi nga honoré bés bi ñoo ngi lay ñaanal suñu borom di ko jaar ci sëñ Muntaxa Mbàkke moom mi nga xam dafa apprenti wu tey kuy taalibe rek ci jamono bii ñu toll ci moom nga jànge ak taalibe sëriñ Baara nag ñoo ngi lay sant bu baax a baax gaynde waa ngeen may ma tuuti may leen ma tuuti bés bee ni mel dañoo bokk lislaam gi bokk pas-pas bi tey nag sama xol yëngu lool ndax dama gestu gis waa kër Serigne Saliou Touré bu Thiès di leen bëggee lool di ñaan suñu borom mu taasu ci ay barkeem di siyaare aussi Serigne Assane Salam njabootam ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax ànd nañ ak ki nga xam ne moo topp ci xalifa Cheikh Mouhidine mu nga ne le toog ànd ak imaamu jumaa ji di fadilatu Mursid Omar Ibrahim ànd ak Serigne Saliou Camara ñoo ngi ziar tey doon suñ mbëgte loolu di ñaanal gaynde di ñaanal gaynde bu beneen yoonee ñu pexe ba ñu ñëpp ñu dajëp incha allahu taala jërëjëf waa kër mu Mouhidine Samba Diallo Serigne Ahmadou Touré